ngir ngeen di bañ a rata benn événement Wally Ballago Seck abonnez-vous sur Univers Info TV ngeen di am information yi à temps et à l'heure Univers Info TV Euh, salaamaaleykum cher internet bu univers info tv dafay nekk chaque jour mbégte ak contentement di jàkkaarloo ak yéen euh, tey nag dañoo ñëw seet si koo xam ni ci musique euh, kenn dootu ko présenté ti mu nekk biir Ramdan ñu koy wax ki nga xam ne mooy Lamine Nar Lamine Nar nag ko wax Ramdan xam ni mooy kër bi mu ngi ci biir bu baax a baax dama koy bàyyi mu daal di nuyoo rek ñu mën a xuus jàll ci waxtaan bi salaamaaleykum waaleykum salaam waa univers maa ngi leen di di leen jox seen wàccuwaay di leen bégee waaw ginnaaw bi nu sante yàlla dañuy julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi sallam di ñaanal suma yaay ajaratu Ndeye Marie Ndiaye Gawlo yal ko sunu borom xaare ajjanay firdawsi di ñaanal suma sëriñ Alaaji Baara Mbàkke Falilu yal na yàlla yokki leeram taas ñu ci barkeem njaboot gi mu fi bàyyi yàlla bàyyi leen fi ñuy wut seen bàyyi ci lu bari ci barke borom Touba. di ñaan Sénégal yal na fi yàlla def jàmm di ñaan màggal gi ñu dëgmal sunu borom yóbbu ñu ci jàmm ñu fekke ko ci jàmm lépp lu fa waaye ñaan mu doon lu gën ci yow yal na ko sunu borom nangu ci barke borom bis bi barke xaadimal Mustafa di siyaar ñëpp di leen jox seen wàccuwaay. Mhm. Euh, tey bu ñu waxee Tonton nekk na koo xam ne mi ngi biir Ramadane te yàgg na fi lool ñu mhm. bëggoon xam rek intégration bi nan la demee biir Ramadane. waaw intégration bi nu mu demee. Mhm. yomb na yombul. ndax ku ne xam ne diggante Thione Seck ak ndey mari Ndiaye Gawlo Ndeye Marie lu coon mësa way moo ko aw bis dama jóge vacance jóge Hollande ñëw Sénégal 2002 je pense xaw ma 2001 2002 yooyu la woon euh, maturin mi tey demoon Touba guddee ñëw ma dama ñëwoon pour baal si rek a ah. mm-hmm. ma ñëw taxaw di seetaan gis alaaji ma dun kase di tëgg ma yéeg jàppale Alaaji Modou ba soirée bi tas Thione Seck tourné na ma boo paree euh, taxawal nga xaar ma ma ne ko ah waaw ok soirée bi tas ma dem këram mu ne ma dama bëgg bis ni tey nga ñëw bokk Ramadane di ma tëggal ma ne ko waa man nekkuma Sénégal nag man bitim réew laa dëkk te dama fa am liggéey yu am importance dama fa joxe ay école de musique moo fay jàngale ay tëgg en même temps di liggéey di jeeg euh, artistes yu ma yi nekk foofu yëpp du ma mën a bàyyi sama liggéey di ñëw fii di toog tëgg mais heure bu ma fi nekkee heure boo ma soxlaa rek dinaa ñëw di la jël ndax man dèjà man yow yaay sama woykat te yow sama ndijaay nga bëgg sama yaay yar ko jàngal ko lu bari ci musique mu na ma noo dama ni yow noo xoolal da ngay intégré Ramdan yàlla di def di def ba alaaji ma dun bàyyi Maturin rek nekk fa ak Adama Diagne ak ku ñuy wax Tons Pa Daouda Thione Seck ma ñëwaat vacances mun ne ma yow li ma la waxoon ba tey ma ne ko léegi am problème comme des fois dama ñëw Sénégal di fi yàgg ok mën naa toog toog noonu ñu commencé toog tuuti rek ñu am tournée Italie Angleterre ak Suède mu ne ma yow yaay dem yaag Maturin ma ne ko amul problème ma ànd ak moom tournée ñibbisi toog ba yàlla def amour bi gën a dugg sama diggante ak moom ma ni nag ah comme moom ndeysaan yàlla dogal ne na ma bëgg na ma bëgg naa ko xaaral ma toog rek jàppale ko sama nijaay ñu toogaat jimmi jamono ma ne ko ok man dama war a dellu Belgique non dama war a dellu Belgique waaw pour dem renouveler waat samay kayit mu na ma demal ma dem 2009 mu ànd ak euh, Maturin après Maturin toog moom Thione Seck ma ñibbi Belgique non waaw ma ñibbi ñëw ñëw Paris muy G mhm. Maturin kese ñëw mu ne ma ça fait sax dama la doon woo téléphone ni sax pour nga ñëw jàppale Maturin parce que Bira moo waroon ñëw dem ba ci digg bi ne dafa xaw a tawat mënul dem mhm. ma ne ko amul problème Youssou Dieng mii laa àndaloon Youssou Dieng ñu jógee Belgique ñëw Paris Youssou ne ma waxoon naa la ko ñëw ma ñëw coon ma oh, yow dama la doon woo ni léegi sax pour nga ñëw bi ma ñëwee ñu toog après Maturin continuer ñoom ñu ñibbi coon sekk woo ma ne ma lamin fi mu ne nii wax dëgg yàlla comme yow xam nga sama musique te yaakaaruma ci kenn dama bëgg nga ñibbi si Sénégal ñëw toog di ma jouer bi ma yox loolu boobu maa ngi Belgique di doxal bu baax nag waaw sama yaay toog bi ma ñëwoon di toog neexu ko wax dëgg yàlla neexu ko mu ne ma man yow yaay samay loxo yaay sama tànk bu ma sañoon nga toog Belgique boo bëggee ñëw Sénégal nga def un mois coon na ko nday kii maa ko wax pour mu ñibbi ñëw toog di ma tëggal sama billet bi ma ñibbisee coon sekk moo ma ko yónnee bi ma ko yónnee Rose Diop mii tey mooy sama seede moom laa ko njëkk a wan ne ko ah man de papa coon daf ma woo pour ma ñëw Sénégal léegi définitivement pour toog di ko di ko ko tëggal mhm. sama yaay na ma lamin toogal Belgique liggéey heure boo bëggee ñëw def un mois deux mois këndoo ma bëgg coon sekk liggéey ak moom coon ne ko Ndeye Marie na lamin Naar ñëw ñibbi si toog jël ma ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci dëgg ñun ñu ngi ci safaan wax dëgg yàlla mhm. ma ni ma ni Ndeye Marie man dama bëgg coon baay ma ñëw mun ne ma ah waa baax na ma ñëw toog di liggéey ak moom di liggéey ak moom di liggéey ak moom ba yàlla dogal ñu demaat tournée 2006 si lañ njëkk a yóbbu waali bi ñu ànd ak moom dañ ko doon yóbbu pour mu fubbali yàlla di dogal bu ñu mësaan dem ci kii bi maag waali ñooy bokk nekk ñooy séq lu bari moom chaque jour buy wax sax da koy wax danaan bi ma demee benn yére laa doon sol mu yére Lamine Naar Lamine Naar la moo ma doon jox lépp ba bañ nag ba coon seeg bu bu ko daan jox xaase pour mu jënd yére barke sëñ baara man barke sëriñ baara man la koy jox ne ma àndal ak waa li nga defal ko lii ba yàlla di def tey jii coon seeg yàlla jël ko waali seek yoor raam daam di ko doxal lii moom ma dugal raam daam mhm. ma ma sacrifier lu bari nag ndax raam daan bàyyi lu bari ndax raam daan Waly xam na Thione xam na Ndeye njaay sama yaay xam na yàlla mi ñu tiim xam na Ousmane Camara ma ca Amérique xam na. Mhm. ma sacrifié lu bari dégg lu ne daj lu ne ndax raam daan. Mhm. ba tey Waly Seck yor ko di doxal ñuy sant yàlla bu baax te xam ñu raam daan duñ fi gan duñ fi duñ fi daal loo xam ni nit ñi war na ci amee laam-laamee ça fait l'occasion ma leeral lu bari tey man dama doon toog di tëgg samay tumbaa ñu toog nii may tëgg tumbaa ñu bari dañ may woon naa ma Lamine naa loo joteeg waali Lamine naa dañu la gis géotoo Lamine Naar la gis tëggatoo man leen man jotoo mag waali dara fulla ji ne ci man coon sekk bi muy dund barke Serigne Baara daka daan wax danaan fulla ji ne ci man mi rek moo ne ci doomu nday mari Njaay gawlu ji te tey bu ma nekkoon daan gis fa loo xam ni neexuma wala awmatuma yëg-yëg pour nekk fa am naay fulla ne fi ñukk lépp man ñi ma soxla bari na man ñi ma soxla bari na mm-hmm. yàlla dogal na ni chaque jour moo ko dëkk bu ma bëgg a dem ci àdduna mën naa fa dem di ñaanal sunu baay bu baax boobu alaaji dut njaay ku mboros yàlla xaare ko àjjanay si ginnaaw yàlla ak sunuy waajur lépp lu ma mel rek moom la fépp fu ma dem ci àdduna moom la tey bu lépp yombee ci man ba may dugg fu ne ci àdduna grace à Doudou Ndiaye Rose dama koy ñaanal suñu borom xaare ko àjjanay si du mës a dañ sama xol du mës a dañ sama xol kooku dafa nekk koo xam ni du ma ko fàtte ba ba may sàngoo suuf di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana moo tax bu ñuy wax loolu ñoom xamuñu daan chaque jour dañuy indi lu bees euh, bu njëkk musique da ci daan gis ay euh, doo daanoo ci gis tungune mooy sabar bu gàtt boobu mm-hmm. daanoo ci gis ndeer ankay jamonoy coon sekk amoon na ndeer mais après bi Wally ñëwee nag moom moo indi ay tungune ci musique Cheikh Anta ñëw indi tungune ba tax na léegi orchestre yi bari di teg tungune ay tumba bu njëkk ci salsa nga ko doon dégg ak musique gu démb bu njëkk sabar amul woon tembaal moo amoon ak tumba yàlla di def ci sama ci li ma dégg ñu ne Aziz Seck jére moo njëkk indi sabar ci musique waali ñuy ñuy ñuy ñuy doxal di indi lu bees tey ñu indi ay cung bu subaa ñu indi tembaal bu subaa ñu indi congas ma bëgg leeral sénégalais rek ne leen li may tëgg ak li Matoune di tëgg ñoo bokk sonorité mënuñu bokk ci kaw seen bi tey bu waali soxlawaatoon temba kii ay tem ay tumba suba dañ koy tegaat mu yow euh, ci ci sa biir euh, bi ngay intégré Ramadane yow li nga wax histoire bu foor la histoire boo xam ni c'est solide quand même mhm. lan moo tax ngay ngay sédde kooku place bi alors que yow yaa ko fonde ndax ni nga waxee ni yow ak Papa la woon ba pare tamit euh, Papa defoon na la nit koo xam ne confiant na parce que mhm. daf du yëkkati xaalis di la ko jox ngay jëndal doomam yére mhm. donc est-ce que yow nekk nga nit koo xam ne tey ji da nga war a pousse Ramadane ak li nga fi nettali lépp non du du du affaire pousse tey yëg-yëg la yëg-yëg la rek Wally mooy sentir li ko li ko neex ci musique am man Ramadane suba damay mbalax suba ma tëgg cool suba ma tëgg ay congas suba ma tëgg tembal Maturin tey man su ma amee yëg-yëg fekk ko muy tëgg damay ñëw na ko morceau bi dama ko sentir du ci teg baat day puus ma tëgg bay si noonu xaali noonu Seex Anta noonu Njaga noonu foofu Ramadane man kenn mënuma ko puus ndax Ndeye Marie Ndiaye jurul doom ju ñàkk fayda joo xam ne day toog ci ay orchestre ñu koy mankeel ba muy gis boppam non non non non Ramdaan heure bu ma demee ba ba sentir ne ma Lamine Naar amatuma fa gis naa amatuma fa place wala ñu ngi may xoolee benn bët wala teg nañ ma fu ma fu ma war a teg am nay fulla ne fi ñukk lépp dem fu ma neex mhm. man bu ma bàyyi woon Ramdaan tey tey du ma sommé te duma nekk ci orchestre bu ndaw orchestre bu mag bu ñëpp yi wër lay nekk du dëgg. kon foofu je mm-hmm. mais tey yow gis nga sànq wax nga li nga xam ni moo la fondé est-ce que nekkul ni li Ramdan ñàkk port moo tax tey Lamine Nar ak dignité am structure am ko mu fay nekk di fa càmba cambare parce que nekk na foo xam ne tey jii ku neex adhéré ndax sur seen sax nit dafay taxaw ni bokk naa biir Ramdan comme le cas de Banaya. waaw Banaya dafa ñëw ak yëg-yëgam ak li nga xam ni moom la sentir. mais Ramadane ñàkkul porte dafa am Ramadane am Faramareen Ramadane bi ko Thione Seck di fondé di ko fondement fondement ko pour ku jug rek ne Ramadane ku jug na Ramadane te ki fi Thione Seck bàyyi tamit ñàkkul fayda ñàkkul personnalité ba ku ne di Ramadane bopp yi nga fay gis nga fay gis yi nga fay gis rek nga fay gis mhm. gisoo fa kenn ku jugee ci àll ba ñëw naan Ramdan laa bokk chaque jour dama leen ko wax yéen da ngeen di jaawale Ramdan ak ay xaritu Wally des fois da ngay gis kenn ku taxaw ci internet bi di wax rek nga ni boo leen laaj ngeen ni kii Ramdan la non non non non mooy orchestre bi li fi coon sekk bàyyi mu am ay kayit jox ko doomam doomam di ko doxal ñooñu ñooy Ramdan comme mooy ñun ñi musiciens yi ban na yaa nag yëg-yëgam law def rek nit ku ne man am naa droit. tëgg ba mu neex ma ma ne ok léegi wax dëgg yàlla sentirutuma Wally Seck beneen waykat laa sentir dem ci moom lan mooy problème bi. Mhm. Messi day jugee Paris dem Bayern est-ce que dafa garaaw mbër yi dañuy jugee écurie bi dem écurie bële est-ce que dafa garaaw. Mhm. léegi pourquoi musique bu kenn jugee fii dem fële rek mu war a indi polémique wala indi coow mhm. nit ku ne yaay xool li la neex ak fi nga sentir nga dem fa. yëg-yëg la rek mais du question ni. kii jóge na fii dem fële kii jóge na fii dem fële mu war a dem mu war a nekk coow no non non non non euh, kii nu mu tudd Madi Camara ci Thiat Seck la nekkoon di ko tëggal. Mhm. bi mu bàyyee ci Thiat Seck dem ci Sidi Diop est am coow. Baye Mbaye tamakat bi Thiat la doon tëggal bi mu bàyyee Thiat Seck ci Ibro Naajo est-ce que dafa am coow. pourquoi Ndeye Ndiaye Banaya ne raam daan laa bokk rek mu war a nekk polémique bu rëy ku ne di ibbi sa làmmiñ di wax ku ne di wax. amul sens. Mhm. nit ku ne fi nga am yëg-yëg dem foofu ngay dem. Ramadane amul port boo xam ni ku waaye neex dem ku waay neex ndax ki fa yàlla teg muy doxal di suñu waykat ñàkkul fayda ni mu baaxee noonu la amee ful mhm. wax dëgg yàlla.

parce que à chaque fois rek daf ma daan même bi ma nekkee xale bi ma màggee bi ma amee soxnaak bi ma tukkee lépp même benn baat lay def sama nopp Lamine Naar foo mënti taxaw ci àdduna xamal ni Ndeye mari Ndiaye Gawlo mooy sa yaay loo mënti def bu ñu bind du ñu bind Lamine Naar kese dañuy bind Lamine doomu Ndeye mari Ndiaye Gawlo dama bëgg foo mënti génn rek dee ma bàyyi xel wax jooju ma waxoon ba tey nag dafa nekk ci man parce que man gor laa ba pare sama yaay bi mu wàccee liggéey daf ma fi bàyyi famille bu baax du dëgg. Mhm. daf ma bàyyi sama famille ñu baax samay magu yaay nekk fi seetaanuñ ma samay soxna seetaanuñ ma yàlla suturaal ma ma am famille bu baax moo tax ñàkk yaay moom kenn mënu ko amul remplacer surtout nag. yow nga nekk ñaar kase kase benn bu góor benn bu jigéen sa yaay nekkoon sa complice nekkoon sa xarit moom nga doon waxal ku ne xam ne Lamine Naar nu mu bëggee yaayam ku ne xam ne Ndeye nu mu bëggee Lamine Naar sama yaay waaw manqué na ma manqué na ma trop trop trop su ma taxawee na manqué wu ma man sama yaay man chaque jour damay jooy sama yaay damay dawal sama oto ba ci digg ba jooy des fois ma jóge tukki yor xaalis bu bari des fois ma dugg sama néeg toog ma ni sama yaay man kase nii ma toog ak sama soxna samay doom heure bi waroon fekk tey ma nday mari jugal ñu añ wala jugal ñu reer gisuma sama yaay mënuma may sama yaay dara wala tabaski jot su ma jëndee sama xar ba pare sama xaru yaay tege ma ni noo an sama yaay gisuma ko mais damay gëm yàlla sant yàlla te xam ni yàlla moo ma ko joxoon yàlla moo ko jëlaat mm-hmm. mu nekkoon ndey joo xam ne référence la ku baax dërëm ak million la yemale ba pare doylu man moo ma yàq ci lépp sama yaay du fen du jëw man boo ma xamul wala mën nga ma waxal lépp mais Lamine Naar ku ko xam xam na ne man nit dëgg laa du ma fen du ma jëw du ma wax loo xam ni lu ma la ragal a wax sama yaay noonu la meloon ak koo mënti doon bu la bëggee wax dëgg da lay wax dëgg mais dañuy sant yàlla bi nga xam ni jur na ma fi ma war a juree yar na ma toxuma cigarette naanu ma sàngara sàccu ma fenn ma macha allah kenn mësuma jëli fenn éducation boobu dama koy sant yàlla parce que sama yaay dafa ma yar yar boo xam ne man mën naa nekk fu ne ci àddina ba pare mu teral ma xool lu ma am barke borom Touba Mbacke sama yaay bu demee tukki ma dem tukki bu Youssou Ndour ndeysaan dafa mos a ne ma noonu Lamine loo gën a góorgóorlu sa yaay góorgóorlu parce que sa yaay bu ñu àndee tukki benn nit rek la yow ak njeng rek lay wax sama doom ji njeng ak bébé faa sama rak kon dañuy sant yàlla bi nga xam ne ni yàlla may na ma yaay joo xam ni fu ne la ma nit di teralee ci àdduna damay toog sa ah yow de dama la bëgg ndax sa yaay yëkkati ay teraanga di ma ko defal kon sama yaay dama koy ñaanal rek yàlla xaare ko àjjanay firdawsi yàlla yërëm ko te xam naa ni moom ma nga àjjana ndax kenn xame woon doom ju mu jur ak ju mu jurul suñu kër boo fa saan dugg ñi seen xel naxari ñi nga xam ne ñii teg du ber kenn suñu kër mosul am gardien barke borom Touba day mari liggéey jox doomu jàmbur yi jox doomu aadama yi moo tax man fu ma nekk ci àdduna du ma tiit soxna si mhm. man ragaluma dara ci àdduna mhm. barke Serigne Bara ragaluma dara dara dara ci àdduna suñ ma waxoon néeg bële gayndee fa nekk duggal am na la fa ne boo fa duggee gaynde gi lekk la barke Serigne Baara ma gëm yàlla ne damay dugg damay jël sama yaay teg ndax dafa ma waxoon ne ma loo bëgg loo bëgg di ko am yaay man dama dama sant yàlla bi ma yàlla joxe yaay ju gore yaay ju baax billaay barke borom Tuubaa mm-hmm. uh, tey uh, doo gan ci milieu showbiz bi mm-hmm. yàqante bi am ci biir ay weerante ba tax ay audio sax day fuité hmm. ci ay xarit xarit ak ñoo xam ne dañuy bokk même label hmm. mais tout le temps dañuy gis ni yàqante bi dafee bari carrément ba ku nekk ragal lu wax dara moroomam hmm. loolu yëpp éducation la ñàkk éducation ñi nga gis ñi jàng musique fi ñu war a jàngee musique est que di nga ci gis kenn kuy kuy kuy téesante jamonoy ñoom Thione Seck jamonoy Youssou Ndour jamonoy Ismaïla Lo Baaba Maal Ouza Moussa Ngom ñoo gënoon a metti jamono jii ñu nekk seen rivalité moo gënoon a garaaw téeméeri junni yoon jamono jii te daanuñu ko fësal ñu ko def comme ni ko nii defee te booboo gënoon a metti ñoom lu ne lan doon defante mais doo ci teg sa bët du ñu weerante du ñu waxante audio ñoom lépp lu ñuy def ñu ngi koy defante seen biir te doomu aadama du yëg du xam ñi mujjee ñëw ci musique bi nag ak ni ñu jàngee musique xam nga ku dem ku jàngee musique xoslu yàgg xoslu mu metti mais yow pip nga dem commencé way ngénte way kii ñu commencé di la may xaalis xale jigéen yi commencé di la topp ñii di la jaay e yaa fi nekk ak yaay lii yaay lii nga guuxi mbagg foog na yaa ci ne non non musique du foofu musique du coow du xuloo Pape Diouf way na ko musique du coow du xuloo musique yow yow yow mi def musique yow yaa war a njëkk a happy yow yaa war a njëkk a nekk nit bu dëggu yaa war a parce que yow da ngay musique pour ñaax doomu aadama yi. léegi pour pourquoi yow nga bëgg a nekk musicien bëgg a yàq sa moroomu musicien wala di déewante fi di waxante ay ojo muy génn ñaaw làmmiñ seeni doom di ko dégg ak seeni njaboot loolu mooy lan mm-hmm. ñun ay xale lañ mais dañoo yoroo ci mag ñi mais teewul ñun dañu am respect sunu ay kilifa. man su ma gisee coombaay dama koy respecté bi coombaay di tëgg judduma mais tëggandoo nañ mm-hmm. mbay jee fay bu ma ko gisee sàppoo mm-hmm. ñun loolu la musique bi léegi kenn xamatul lan la amatul respect amatul cër dangay nekk ci kaw seen sax yow booy da nga man damay seetaan des fois ay live nit ku nekk ci kaw seen taxaw naan billaay maa mën a way yow doo xaar bañ la yaa mën a way xaaral bañ la yaa mën a way musicien du tagg boppam da ngay toog ba nit ñi ne mais diw moo mën a way mais ñun dofuñu parce que jàng nañ musique weenu weenu musique la ñu nàmp weenu waykat lañ nàmp nit mënul way lu ñu jaaxal ci àdduna mais suñu moroomu artistes yi yu bees yi dañu war a yar dañu war a am yar am éducation yow nit ki lay seetaan si sax dafa war a ñëw gis yow comportement boo xam ne man am na ñu bari ñoo xam du ma leen seetaan ci ñàkk discipline ci kaw scène bi ci ci façon seen façon way seen façon yëfu xamadi yi ñuy def ci ci wax yeeg yëfi dof yoo xam ne kenn xamul loolu mooy lan nit dangay am yar am personalité yow mi taxaw di ci kaw seen bi kii ñëw di la seetaan dafa war a ñëw xool ne ii sama waykat bi moo yaru sama waykat mais xoolal sunu sunu papa yeeg sunu ndijaay yi doon way est-ce que ba tey da nga fu nu gée day fees dell parce que yar gi ñu wane woon ba ñuy door moom la ñu wane ba tey mm-hmm. booy nañu jéem a am yar te bàyyi yàqante bi bàyyi audio yeeg bàyyi yëfu manqué yi ñuy def musique pour pour yeete la ak pour bégal say fans mais pas pour yàqante tey suba kii suba kële suba kële nañu jéem a nekk nit. Mm-hmm. mais coow li toujours day tourner autour ci balaa Ballago Seck ndax boo xoolee mariage mm-hmm. da naan bonheur moo am mais mariage boo xam ne après dafa bëri coow parce que Aline rakkam la mm-hmm. te nekkul ci milieu showbiz mais mariage am dafa bari coow parce que après am na ay révélation yu ci am am na tamit ñuy wax ni que dafa marié pour femme bi pour son propre intérêt nekkul mbëggeel ak yeneen ak yeneen ak yeneen yow loolu nan nga ko analyser. waaw man xam nga am na détails yoo xam ne moom duma ci bëgg di wax parce que ay vie de famille jàmbur yooyu man nekkuma ci yooyu mais Alioune Seck amul benn intérêt bu muy sëy ay naan intérêt moo ko ci dugal Alioune Seck juddu ci teraanga mhm. baayam bàyyi fi teraanga magam yor teraanga. yaayam sëy fa mu war a sëyee suñu borom may ko teraanga yow teraanga bi yàlla may Kiné Diouf macha allah waali rek teraanga la waali sekk rek teraanga la kon ban intérêt moo fa am yooyu nit ñi nañu bàyyi yooyu ñii sëy nañ fan war a sëyee yàlla leen yàlla jiboole seen wax yi nii wax ak yooyu yëpp man moom bëgguma ci dugg bëgguma dugg ci ay détails ak ay waxi jàmbur yooyu moom intéressé wu ma li li ma intéressé mooy Aline sama rakk la maa ngi koy ñaanal sunu borom may ko njaboot bu barke sëyam bi cat bañ cee dugg ndax fi mu ne nii nit ku sëy ñaari fan ñetti fan sëy ba kiyagul sax wax yi commencé jolli ku ne di wax bëgg tojal doomu jàmbur nañ bàyyi yooyu te xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi Alioune Seck dafa takk soxnaam pour bëggal boppam yàlla may ko njaboot gu barke ay affaire u ay affaire lii ku judd ci teraanga nag ngay mën a amee ay soxla intérêt hmm? mhm. Thione Seck liggéey lu mu leen war a liggéey Kiné Diouf sa yaay nga am ay mag yu am importance mag yu am personnalité ñoo xam ni fu sa bët xonke mën nañ ko fekk kon ban intérêt fa am nit ñi nañ bàyyi loolu waaye fii amul intérêt nañ ko ñaanal yàlla moom jabaram ji suñu borom may lañ jabat gu barke mhm. nga xam ni àdduna bi jeex na ba pare mhm. ba pare euh, tout le temps ñi nga xam ne ñooy faral di yàqante dañuy nekk à l'extérieur te nit ñi dañ leen di may benn visibilité bi mhm. ku ci mel ni am zozo parce que boo gisee moom mooy nekk di yàqaate euh, waaw wax dëgg yàlla nag man moom détail yooyu bëgguma cee dugg quoi ay Amzo mooy yaaxaateeg mooy def lii wax dëgg yàlla bëgguma cee am Amzo man seexuma moom dara lu ñaaw nit ku ne nag ni nga mel yaa ko bëgg a melal sa bopp am joo fekk naa ko Suède seexuma moom lu ñaaw xamaluma ko lu ñaaw baax laa ko xamee seeku nu sax ay waxalanteeg demalanteeg dikkalante mais yàq yooyu moom ku nekk ak sa sa gis-gis ak bëgg moom peut-être. gis-gisam la bëgg-bëggam la loolu moo ko neex kiyam la mais man gisuma ko mu yàq ak muy wax nit ku ne daal boo bëggee nit wax dara nga koy déglu man man man déglu ma kenn man boo ma boo laajal ma sama waa man su ma toogee ci internet bi di seetaan làmb laay xool làmb làmb laay seetaan xooluma ay yenn ay ku di wax la ay ku wax la intéressé wu ma parce que man tal naa leneen lu dul di déglu ay nit bu yaaxanteeg man du ma déglu lu ñaaw du ma lu ñaaw man yónnee audio deux deux minutes sax mu leere na ma kii su ma ko déggee barke Serigne Fallou dama ci am lu ma nax dama koy supprimer du ko déglu man duma ma déglu lu ñaaw du ma wax lu ñaaw man duma déglu lu ñaaw du ma wax lu ñaaw l'essentiel ma nit bu dëgg laa nit boo xam ne laa man su ma leeree ni yow mii tey du Njaay Mbeng sama mag la day way su ma leeree ni yow bëggoo ko bëgguma la Abi Mbeng sama mag la day tëgg sabar su ma leeree ni bëggoo ko bëgguma la Ablaye Dieng sama frère la su ma leeree ni yow bëggoo ko bëgguma la faatu Géwal mook Ndeye mari njaay benn bakkan mhm. su ma leeree ni bëggoo faatu Géwal bëgguma la Viviane moog Ndeye mari njaay ku ne xam ne seen diggante su ma leeree ni bëggoo ko bëgguma la waali Seck moom ñëpp ñëpp ma seetaan am na ñoo xam du ma leen nuyu ndax Waly am na ñu nekk Amérique di dox may daje ak bu nu ma joxee loxo dama teel sa loxo am na ñu ko fekke ci ci télé laay waxee Sénégal fii am na ñoo xam ne du ma wax ak ñoom duma leen nuyu ndax waali am na ku ci dem sax di kalaame naan xaw ma Lamine Naar wax ko mu bàyyi ma parce que dégg naa dafa toog xaw ma fan man du ma yàq kenn man maa ni man Lamine Naar waali laay liggéeyal sama rakk la teg na ma fi mu war a teg tey bu ma demee ba gisatuma loolu amul problème mais tant maa ngi nekk ak moom pourquoi yow nit mu leer na ma yow bëggoo waali yow da nga bañ waali te li man moo may fay moo may fay may def li ma bëgg a def yow nga bañ waali ma bëgg laa bëgg pour pourquoi kon man naa féex laa mhm. noonu laay dundee man mhm. man sama nit moom sama nit la mhm. bëggoo waali bëgguma la bëggoo man boo xuloog sama jabar sax ma xuloog yow barke borom Tuuba noonu laa mel mais mais délégué Ama seen biir la bokk te am zozo mi ngi koy wax ay kàddu yu ñaaw ba di ko tuumaal que ni dafay nekk ak jabaru jàmbur yi cité ki nga xam ni moo di jabaru Cheikh Ama yow xam nga sama xarit nga sama xarit nga man wax yooyu sama yoon nekku ci man yooyu moom duma ci wax sama xarit nga nag waaye man ni bu ma nekkee biir daan laaj ma ci Ramadaan délégué nekkul Ramadaan délégué xaritu waali la bokkul déggoo lu ma la wax Ramadaan musiciens yi ñoo nekk raam daan Ramdan amul benn xaritu Wally bu nekk biir Ramdan. mais délégué ay décision ndax boo xoolee bi bànn moom moo toog ni validé guñ ko. oh soxna si xam nga man dèjà yow man ñi ngi waxtaan waxtaan bu am importance nañ nañ continuer foofu te bàyyi ay waxu kii ak kële laaj ma ci Lamine Naar sama vie ak sama vie wu orchestre comme li nga ma laaj am na ñu bari ñoo xam leeral nañ leen mais ay délégué ay ñi bul ma laaj parce que ñoom lu ñuy wax rek seen yëg-yëg la ñuy waxee. yëg-yëgam lay waxee délégué xaritu Waly Seck la c'est normal ma dama faa délégué man délégué faa naa ko de ndax délégué kenn du laal nitam kantaan ak ay jabaru jàmbur ay lii man loolu duma ci wax duma ci polémique du sama yoon nekku ci lu ma dara délégué su ma ko gisee kër Waly laa ko gis wala soirée seq ak moom jàmm leneen lu muy wax nag moom la concerné man kay laaj ma ci ci wàllum tëgg mi Lamine naa nu mu def ba tëgg fu mu doon noo tëgg lan la lii fan lan lay lan mooy ay projet moo ëpp yi nga may laaj. Mhm. du dëgg mhm. ok. xam nga Lamine mi ngi ci showbiz bi te ku fi nga da nga ciy yu bari nekkatoo koo xam dañ lay dañ lay présenté wala mhm. soit nga man pour man que loo wax ci musique rek téere lay doon parce que nekk nga ci ba pare comme ni nga waxee sànq da ko nàmp mu nekk ci yow à 100 pour cent hmm. kon ñiy wax ñëpp man yaakaar naa ni ci yow la gën a war a mën a fooree comme biir Ramdan mais ñiy wax ni que daan dañ ko war a udool porte lan nga leen di wax ndax Rambo toog na fi ni Ramdan sax am na jaaykatu was te bu pare waaye daf koy daggal sale waaw non déggoo Ramdan xanaa déggoo lu ma la wax porte Ramdan bi nekk Ramdan moo raw porte ba nekk 100 mètres hmm. porte Ramdan moo raw porte ba nekk sam yow déggoo ma tet yi ngay gis Ramadaan ba nga ba waali commencé ba tey ñoom rek nga fay gis koo fa gis keneen da nga gis ñu tëgg délégué yéeg ci kaw seen bi jël sabar tëgg da gis ñu tëgg Rambo yéeg ci kaw seen bi jël batterie ba tëgg jaaykatu was bi mooy kan mooy jaaykatu was xam naa mooy ki bëgg a waale rek tuddee boppam was faramaareen bu ko neexee ñëw taxaw mais orchestre Ramadaan ña fa nekk fa la ñu nekk est-ce que da nga yow mës nga gis kenn ku nekk orchestre Ramadaan génn di ay waxi mankaay wala ay waxi dof non nañ bàyyi ku wax rek ñu jël la ne la yow Ramadaan nga bokk wala daan nga nekk non Ramadaan Thione Seck ñam fa tegoon ba tey ñoo fa nekk Papis Ndiaye mooy chef d'orchestre ka ca topp ka ca topp ka ca topp ka ca topp respect moo fa am ak cër Ramadaan du du du du du orchestre de Ramadaan famille la Ramadaan daan la Ramadaan famille la ñi fa nekk xam nañ seen bopp wasalaam. en waaye léegi pour clôturer ko rek da ngay def sa mot de la fin ak mm. tamit en tant que porte de voix nga bàyyi ñu yenn kàddu yoo xam ne ñu nekk ci showbiz bi dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax. waaw li may tàggatoo mooy di santaat yàlla di ñaanal Sénégal yal fi yàlla def jàmm di siyaar sama famille siyaar samay doom yëpp di leen wax ni la daal musique passion la ak bëgg-bëgg musique du pour yàqante mm-hmm. sama moroom yi. di ko jëmale ci man commencé par man nañu bàyyi yàqante bi ñi nga xam ni comprendre comprendre gunu musique école des arts yaatu na nañ dem jàngi musique dem jàngi ay gaam moo gën euh, nekk ci kaw seen yi di defanteek waxante yi ñaaw dem leen jàngi musique musique da nga koy jàng musique dafa am compter da ngay compter da ngay dem jàngi ñu jàngal la lan mooy musique boo waree fii nga war a waye fii nga war a daanele fii nga war a yuuxu fii nga war a wàcce moo gën yii ñuy def nii te xam ni ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ñun ñëpp ku ci tukki benn drapeau ngay wane wane woo drapeau France wane woo drapeau Suisse wane woo drapeau Amérique drapeau Sénégal ngay wane léegi pourquoi ñu bëgg a xiiroo bëgg a ŋaayoo nekk leen ci jàmm yéenante jàmm mhm. buñ ko defee dinañ am xaalis parce que sunu fan si ñun ñëpp benn lañ ki bëgg kii mooy bëgg kii mooy bëgg kële mooy bëgg kële te bañ a bàyyi nit ñi ñëw ci yéen di wax ngeen leen di gëmm ku ñëw ci yow di la wax naa la diw nee na li boo ko freinee saaga ko ne ko sama kër bu fi duggati beneen yoon dootu la nettaleeti mais bu fekkee ni dafa ñëw waa diw de démb yow la amee nga naan ko ah ah doo yëfi yëfi dof la nekk leen ci nekk leen temps bi dafa dafa dafa gàtt nañu jéem a xool nu ñu amee xaalis jéem a xool nu ñu bégalee suñu bopp ak suñuy fans ak suñuy njaboot di ñaanal musiciens yëpp yu ne Sénégal yal leen suñu borom defal jàmm képp ku ci am baat di way yan na suñu borom wéral sa baat ci barke Seydina Muhammad su dee wax naa fi loo xam ne gaañ na kenn maa ngi tuub di ko jéggalu ci barke borom Touba man du ma wax lu ñaaw du def lu ñaaw bokkuma ci gaam boobu sax man musicien yëpp samay xarit lan man fu na laay yi man fu na laay dem fu ma am yëg-yëg damay dem soirée Sidi damay dem soirée Naajo damay dem soirée Pape Diouf damay dem soirée Thiat Seck damay ñëpp laay dem seen soirée ñépp laay dem seen soirée parce que man Ndeye mari Ndiaye Gawlo ma jur moom ba muy dund kenn du ko xaajal fii nga war a dem ak fee nga war a dem ñëpp la doon aw ñëpp la doon aw mais nag bu la leeree ni yow diw nga faa diw goog nga faa da ngay wane ni man kii laa faa te bañ boo ko gisee ree boo ko bu wanee ginnaaw nga saaga jamat non non non man gëw ma loolu mhm. man damaa bëgg nit day dëggu nañu dëggu booloo bokk ndey ak baay liggéey te wàññi wax ji mhm. waali wax na ko liggéey te wàññi wax ju bari ñoom bañ gis nga waali gis nga fi ko yàlla teg nii mm-hmm. suñu borom moo ko fa teg xam nga la moo ko fa mm-hmm. gëm-gëmam ak bëgg bëggëm ak waali toppatoowul dara waali waxul waxu jàmbur duggul ci kenn waali liggéeyam rek barke borom Touba Mbàkke mm-hmm. mais yow chaque jour ngay jàpp ni di ko xas naan diw nii la mel diw nii la mel te chaque jour niw diw googu di avancer mais war nga xoolaat sa diw di avancer yow ngay dellu gi naa war nga xoolaat sa bopp nañu gëm li ñu gëm topp ci waali te xam ne ñoom waali mooy seen mooy seen seen kilifa ñu jox ko cëru kilifa te xam ne ku ko ci topp jox ko cëru kilifa barke borom Tuuba Mbàkke doo ko réccu mhm. ndax man xam naa xolam mhm. xam naa xolam xam nga Youssou dafa jàppale ay magam mhm. jàppale ay rakkam jàppale ñëpp Youssou Ndour jàppale ñi mu jàppale ñëpp kon nag ñoom bu ñu ne ok waali sunu génération waali la fi yàlla teg dañ koy war a nangu te topp ci ginnaawam nag te mu nekk lu dëgg ci ñoom ku ko ci def rek doo ko réccu ndax man xam naa xolam xam naa xol heure bu toogee rek da mu ngi xool li jéem avancé xale yi des fois nit waali bokk na fekk si di concert fii Cissesse mhm. bu neexul woon waali loolu du am ndax waali bu ne woon non man ka semence bokkuma ak benn xale seen kon loolu du am mais pour nga xam ni waali dafa généreux mhm. xale bu ko ci topp rek nekk ak moom ci jàmm xam ni kii sama mag la moo ma jiitu ci aar xam fi nga war a yem ak moom barke borom Touba Mbacke kenn du ko ci réccu mm-hmm. waaye dafa topp magam Pape Diouf bi muy njëkk a wax booba mu ne Pape Diouf mooy sama idole mooy sama woykat toog nañ ci otom ba tàyyi barke borom Touba kon nag yal na yàlla def jàmm mm-hmm. di baalu ñëpp aax di baal ñëpp aax di leen siyaar yéen tamit seen télé bi mm-hmm. law ca kanam ci barke Seydina Mohamed yéen it kenn déggu leen ci dara boo leen tiitere nag na ngeen li li ma wax foofu laa <laughs> merci. ngir ngeen di bañ benn événement Wally Ballago Seck abonnez-vous sur Univers TV ngeen di am information yi à temps et à l'heure Univers TV.